tomb bi ñu doon waxtaanee ci lay ci lay ñëw ba léegi ndax mooy asaas bi muy muy alxuraanul karim ndax képp koo xam ne bëgg nga yoon soxna moom li mu waxoon dafa leer yàlla daf ko waxoon ne ko wa innahu la dikrun laka wa mi ka wa sawfa tusalun responsable mu jël mu jël ko liggéey ci liggéey bi ci liggéey moom yoon soxna alxuraan laa bi da nga xat bi mu tegoon ci lu am solo mooy ku ko fekkee ci yéen na ko jotal ko fekkewul te jotal ga it nag responsabilité bu bu da nga ci jël la nga la balligu anni walaw aaya benn borom xam xakim borom xam bu mat day wax ne balligu taklif la anni sharaf la walaw aaya ruxsa la waaw balligu taklif la dañoo sar nañu nañ jotal leen mel ne dañoo rët mu ne anni ki nga jot jotlil jaral lu nekk ndax yoon sam nga jotlil mu ne nag walaw aaya mu yombal ko bu doon da ngay jot da ngay mokkal kaamil bépp mën koo tafsir mën koo nangam doog jot moo tax mag ju baax sëriñ Mouhamadou Moustapha ñëw ndar xafisahullah waraa day faral di wax ne nit sañ naa ubbi daara bind ca buntu daara ja huna madrasatu suratul asri fii daal dañ fi jàngale suratul asri wal asri boo ñëwee ñu jàngale wal asri ba nga mokkal ko nga dem ndax yonent bi benn aaya la waxoon lii ñetti aaya la nee na booba wàcc nga ndax moo tax mu am am solo baax baax kon loolu rek mooy tax ba walaw aaya ja ci lañ ci euh, euh, këfinoo waaye macha allah wax dëgg yàlla loolu téere boobu nag téere boobu nag ku la gën a liggéeyal yonent sam ku a liggéeyal lislaam moo la ci gën a fees sëriñ bi moom moo tax ak fésam maanaam diine moom moo tax wenn wenn genn wet goo xam ne mënu ca ñeneen ña wala daal nga gis ca kemam dana jafe lool lool lool lool rawatina téeméeri téere bii nag moom bu ñu ci doon waxtaan ba suba incha allah taala bu ñu ñëwee danañ danañ jéem a bu ñett yëpp yàlla ñu doog a commentaire ci liñ ci gis sëñ Thierno Mouride bisimilah. képp euh, sëriñ Saliou Mbacke moom sëñ Alaaji xam naa ne euh, waxtaan wi moom dana jafe ci man ndax ay borom xam-xam rek ñoo ma wër. waaye fi sëñ Sall daanelee rek foofa laay tàmbalee mooy li nga mujj wax sax mooy sëriñ bi li ko alquraanul karim jaral euh, lii nag mooy lu jege jege la ndax Baye Mahmadan Sey xam ngeen ko dafa am euh, atam mu liggéey euh, téere sëñ Amidun Lo yooyu ba ko indee xibaar ko sëñ Saaliw ci guddi gi xam nga sëñ bi dafa baaxoo fay làmp yi mu ne nañ taal làmp yëpp ñu taal làmp yi mu xool xool xool daal ne nañ ko ci indil junni booba waaw junni exemplaire booba téere bi mu ngi weccee ko ju ñaari junni ak ñaar téeméer daan ne ko négal tuuti sama reeru bopp bi bu ma reeree ba noppi jox la nga barkeeloo ko euh, daan ne ko alquran euh, bi mu wàccee ci yonent bi dafa tasoon ci dënnu góor yàlla yi booba loo ci soxla rek dangay dem ci diw laaj ko ko ba xam ñii mokkal lii ñii mokkal lii ñii gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wa ñu liggéey ko ba mu doon ab téere waaye téere boobu it demoon na ba jafe lool ne ko sàllaaw ñun ñii nuy tudd di tudd sëriñ bi tol nay jamono ñu ñuy boole ñett benn téere daan ko tol nay jamono yit may bindulu man di fay woy dërëm kon buñ àggee ba lu toll nii nga mën koo indi ci benn jataay ci man xam naa ni liggéey ci alxuraan dox na lool euh, jox ko ab reeram jël ca junni kaamil moom moomu itam xam ngeen ni euh, ci ak mu jëm nañ ko jox ñetti kaamil bis bu set ñetti kaamil yoo xam ne ci daaraam yi lay jóge te ba muy sant cant gu ga ci alxuraan dama faa fekk ndax dafa am bis ma ànd fa ak Cheikh Béthio fekk sëñ Abdou Lahad Jaxate ma nga fa woon ak sëriñ Mataar Jaxate mu yónni xaadim cuun doomi sëñ Béthio ne ko nag ma tàngalal kafe gu fonk ndax damay sant sëriñ bi bi mu ko tàngalee kafe gi ba indi ko mu xelli jox mag ñi kenn ku ne téye ab kaas mu ne leen daara yii de bi ma ci dugg di liggéey tol nay jamono ñu jox ma fi ñaari fukki saakuy sumul bi ma sottee sumul bi ma fab saako yi def ko ay mbubb jox ci fukki dong ak ñaar ya ma amoon te gën leen a fonk lool may dox nag ba ji ñu indil ma fukki junniy mbubb ak ñaar loolu moo may xamal ne borom liggéey bi nangu na liggéeyam douze mille mbubb yooyu yëpp booba jamono dongo yi dañoo dem ca daara yi kenn ku ne ñu nattal la indi ñaw yóbbul la quarante kilomètres tissu it moo leen ko jox kiis yoo xam boo ko tàllalee quarante kilomètres la njëlu daara ji ak àggoon na ci ñetti ton te loolu seen jëwrin ju baax jooju wax ci fii dañ fiy jàngale sóoratul ixlaas wala sóoratul asri dafa wax ni sàllaaw sama daara yi dama bëgg ngeen xam fu mu ma toll mooy bu ma fi tabaxoon daara def ca la ma ca war a def lépp moo xam ndox la ak courant ak dund ba yëpp ba mat ñu indi fi genn gone mu jàng fi basma la ñu toj daara ji jaral dama ko waaw kon eh, alquran sëriñ tubaa dafa jaar ak moom foo xam ne sax ñu bari ci kilifa yi dañ ko dut seetlu waaye alquran eh, xam naa li tax ñuy wax umul kitaab xëy na kon dinañ ko nangul mu doon jigéen waaye day mel ni bu fekkoon ne sëriñ tubaa am na ku mu war a teral koo xam ne ëpp séet la alxuraan lay doon ci moom ndax boo amee séet da ngay wut lal bu rafet lal ko darab yu rafet teg ca loolu lan xam ba nim fiy jóge lalam yi alxuraan képp a ciy war te wormaal na ko wormaal bu tol ni kenn mësul fekk sëñ Tuubaa mu bokk ak alxuraan ab lal mu ngoog te dane woon ñaara ne ci sama xol muy yàlla ak yonent bi alxuraan moo leen ñetteel cër boobu alxuraan am nag ci moom di séet ba mu sopp ko na nit di soppee ab séetam moo tax doomi sëñ tubaay yépp di alxuraan mooy seen ndey lu naqaree xam la nag waaye sëñ tubaa doomam june mën na koo delloo ci alxuraan ñii dañuy wax daalika fadlullahi yuutihi man yashaa wallahu dul fadlil azim ñii ñuy wax wal aaya wa ma arsalna am na ku doon gëstu ci mbiri sëñ saaliwu ba sëñ tubaa feeñu ko daana ko a cheikh saalih wa huwal aaya wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin noonu lañu bindoo ñoom lépp lu sëñ tubaa am mu jóge ci yàlla jaar ci yonent bi jaar na ci alquran yor melow nit wala mu yor weneen melo woo xam ne wu ñu yéem la waaye lu naqaree lijjanti la ndax mbóoti alxuraan yi dañoo rëy rëy goo xam ne jàpp naa ne ñi nga xam ne dañuy jàng téere bi sax tey dàq yenn yi damay defe ne ndax du téere bi ñuy xam ñoom la ñuy jàng ndax euh, bu fekkee yow euh, da dàq kunpa loo xam ne xaybu la nga dàq ko dàq joxe sa alal lan moo desati ci màndargay gëm man de xawma ko laa rayba fiihi hudan lil muttaqina alladina yuminuuna bil bi nga dàq ko complètement loo gisul ci téere daal yow gëmoo ko kon yow dàq nga loolu wa mimma yun yunfiquun ñiy joxe seen alal nga ne dañoo dof ñiy jébbalu nga ne wéruñu te ku faatu ñu ne jébbal nañ ko boroomam kiy dundu sañ a jébbal boppam boroomam jaarale ko ci koo xam ni nit rekk la lay nuru waaye léppam yàlla ndax alxuraan ni ko sëñ tubaa def bu ci kéemaan yu mel noonu feeñul woon sax kon dinañ xam ne téere bi ab téere rekk la ndax réew mii alxuraan tumuraanke woon na fi waxuma la sax ci ñi ko mokkal di ko fooye waaye mën a am téere bi ba man koo jàng rek jafe woon na fi mu yombal ko lool naka la ko sàmmee mooy dafa defar ay nit ba ñu jomba def lu naqar yàlla mu dénk leen alxuraan sëñ tubaa deful koy xam ne day ku ku mu gis rek fexe nga mokkal alxuraan noonu no boo demee salte di cafoo foo wala nangam déedéet nituk sëriñ tubaa saa bu alxuraan nekkee ci moom nga yëg ni kii sàmmonte naak melow téere bi ndax téere bi ci saay rek doo ko jël dugal ko ci n'importe quel armoire wala n'importe kii nit noonu la noonu la dënn yi mel sëñ bi day raxas dënn ba mu set mu door caa def téere bi mu mën a am leer kon dencukaay yi gën a tedd xëy na lal yi lañuy ñuy yooyu waaye dënni góor yàlla yi nga xam ne ci la sëñ tubaa defoon alquran nafar gi ak daaray alxuraan joo xam ne daa saxal ab lim lu tolloog juróom-ñaar fukki at mbaa lu ko ëpp loolu it nun déggaguñu ko ci alxuraan déggaguñu ko sax ca màkk gëm jóge teyit euh, xam naa damay gàttal rek ndax euh, temps bi bañ ñoo tënk sëriñ saaliw dafa wax ni sëriñ tubaa dafa am bis mu woote ci kër gi wax ne nan ko andil ñi nga xam ne ci kër gi lan jàngee alxuraan ba mokkal ba bind keroog bi ñu leen dajalee ci saasi rek ñu ma téeméeri nit sëriñ bi ci boppam daal ne sàllaaw lii de ci ki mu wàccoon sax amu ko moom mii doon sant nag ci bis bu set ñu andil ko ñetti kaamil kon xam nga ne ab liggéey bu dox a noonu bu ñu nungu te fii may wax ak yow fa liggéey boobu tolloon boo delloo ci ay daaram di nga gis ne ëpp na ko fuuf ndax la sëriñ Cheikh Mbacke gàddu rek ëpp na loolu bokkul ak ñii nga xam ne ñoom sëñ Alaaji Njaay ak raabita beeg fépp foo xam ne ñu ngi fay yënguwoo te alxuraan jafa ne ñañu ko bëgg a def ci ñoom toroxaluñ leen ndax yelwaan loo leen sonn loo leen ci lenn loo xam ne wuute na ak ndigalul yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba ñu mokkal alxuraan loolu tuubaa rek la duñ la fayeeku sëriñ tubaa moo sàmm téere bi moo sopp téere bi moo ci liggéey liggéey bu rëy boo xam ne dafa jaadu nit ñi xam ko di ko wax ndax loolu mooy tax ñu mën buñ ñu nee yéen kat alquran ak sunna nii ngeen ci taxawee ñu ne leen kaay leen lan ngeen ci liggéey ñaata junniy nit ñoo mokkal alquran ci biir njabootug sëñ tubaa kenn déedéet loolu mooy li jàng rek ci kii bi waaye sëñ saali bu masaana santaani njàngum alxuraan ci biir loo xam ne maanaam fu muy sañculu la duñ joxe ay jukki ku ne da ñëw jàng ci sab kaamil dem loolu mooy liggéey boo xam ne liggéey bu wér la bu sëñ Tuubaa liggéey ci alxuraan te àddina si fi mu toll nii dafa dafa dafa bari coow ndax jullit ñi ci boppam ñoo xamatul la leen di jariñ ñu nekk ci sëriñ tubaa nag dafay soppaloo nitam mbir moo xam alquran la moo xam yonent bi alayhi salaam la moo xamit téere yi nga xam ne dañuy jariñe la dafay fexe ba mu xirtal la ci nga xam ne lii boo ko toppee da nga ci jariñu waaye xuppe sax boo boo boo seetloo bokkul sax ci ci ci ci aw doxinam wala boo bu ko dee defit kam koy def ci saas yi day daal di del dellu ca la ko sëñ bi digal kon buumu cofeel googu nga xam ne moom la sëriñ bi sopp alquran màndargaal ko ci ab liggéeyam ba ñu mën ci teg bët ba lu ñu xewle moo ciy jiitu moo ciy mujj loolu dafa war a nekk loo xam ne kum doon sa kumpa nga di ko jéem a gëstu lu bari nag boo gisee ma seetlu ne yoon wi duñ ci communiquer mooy dañ koy def te yàlla tax bari na sax léeg ñuy jàng barab alxuraan ne jàng nañ fa nangami téeméeri kaamil wala nangami junniy kaamil waaye lañuy def te te mu ëpp ko fuuf te duñ ko wax loola yàlla rek moo waral ndax liggéeyal yàlla mu munta ànd ak foo toll di ko wax waaw loolu mooy gàllankoor bi loolu yi nag moo may itam ñi nga xam ne mel na ni seytaane xiir na leen ci ñuy jéem a ñaawal liggéey bi ñuy wax ndax dañuy fekk nu dajaloo di waxtaan fekk ña doon liggéey ci alxuraan ña nga fay liggéey te liggéey ba nekk liggéey bu sax bu wéy ñu jàpp ne dañ koo ginnaawal fekk moom lañ jiital ci lépp waaw baarkàlla ci màggalu ren gi waaw wala loolu te te fi mu ne nii nangu nañ communiquer ci lu bari waaye loolu leeral yooyu sax fi ne boo ko bëggoon a laal boo demee sëñ bi mu ne la déedéet bàyyil waaw waaw certifié ñu ñu bind ko loolu ñi mokkal alxuraan biir Touba moom kenn xamul ni mu toll Euh, te di ko jàng di ko di sàmmoonteeg moom euh, moo gën a jafe te loolu dañ koy def xeexee wuñ ko xuloowee wuñ ko daggasante wuñ ko werante wuñ ko dañ koy jamoo yàlla waaw ak lim yoo xam ne ñu ko saxal Tuuba bari na ñoo xam ne bis bu set ñu jàng alxuraan kaamil te ay sas yoo xam ne yu sëñ bi joxe woon la jox ko seeni way jur ñu jóge fi ñu saxal ko ba nëga ñii ñaar fukki isib ñii fukki isib ak juróom euh, ba ci ñi nga xam ne jànguñu sax alquran daan nañ ñëw ci sëriñ bi mu jox leenub kaamil ñu ñu cay góorgóorlu ba ba ba far bu ñu xëyee mën tee jàng kaamil ndax sëriñ bi lay wax ab bul benn yitte bu dul loolu waaw waaye tënk mbooloo mu toll noonu ci alxuraan di leen liggéeyloo ba noppi yor seen lépp xamuñu it ku ko def ci ci ci lislaam koo xam ne da da lay jox alxuraan muy sab liggéey ba noppi mu yor la waaw waaw kon euh, bar loolu laal ñoo ko ci <laughs> waaw macha allah jërëjëf euh, sëriñ Thierno Mouride ci intervention bu am solo boobu ci jegeel giit muy indi gim indi lenn ci liggéey yu sëriñ Saliou radiyallahu anhu liggéey jegeel googu lu am solo la ndax bari na ñoo xam ne xëy na booy wax lu lu sori dañ koy yéem rek teg ne dañ koy yéem rek teg ne ci li ma ci gën a yéem it danañ ko wax xëy na ci kanam waaye bokk na ci loolu sëñ bi wax moo ma waxoon daara ba mu sotti